internautes yi ñu bàyyi xel ci sene info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey mardi di 31 août 2021 ñu tàmbale ko xibaaru biir réew mi gannaaw bi nga xamee ne nag fan yi yëpp dañoo nemmeeku ab yokk boo xam ne lii ñu naan denrée de première nécessité muy ceeb diwlin ak ñoom seen dañ kaa yokku gouvernement bu Sénégal jël nañ dogal jaarale ko ci ministre des finance et du budget ngir daal teggi taxe bi nga xam ne ñu ngi ko doon teg ci suukar bi nga xam ne kon moom mooy suukar raffiné importé bésub tey bii sax tàmbali nañ ab conseil national de la consommation fële ca CICES ki ko jiite di Aminata Assome Diatta mi ministre du commerce de petites et moyennes entreprises. ca Touba mbir mu doy moo fa xew ñaari fan yi ñu génn muy juróomi xale yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci lii du ndoxu taw yi. ñenn si ñoom nag dañ doon sangu ci déeg yi nga xam ne day fees del ak ndox ci jamonoy nawet. ki nga xam ne moom mooy préfet bu Mbàkke nag euh, mu ngi soññ waajur yi ngir daal ñu xool bu baax a baax a baax ñii di xale yi te tere leen ñuy dem di sangu euh, ci déeg ci jamono jii ñu ne. mbirum Dieyna balde ak Bril Fight Fo bésub tey bii lañ ko doon atte fële ca tribunal bu dakaar biril Fight foo nag moom daa mujjee désisté wu maanaam nee na daal toppeetul dara ki nga xam ne moom mooy Dieyna Baldé Ali balde ak Moustapha te nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa tribunal nee nañ daal dinañ def seen liggéey. ñoom nag ñu ngi leen di toppee mbirum vol tentative d'extorsion de fonds accès et maintien frauduleux dans un système informatique ak collecte illicite ak menace de diffusion de données à caractère personnel. délibéré bi nag dinañ ko amal le 7 septembre bi ñu dëgmal. bu dee tolluwaayu jàngoro coronavirus nag bésub tey bii ministère de la santé annoncé na lu toll ci 52 nouveaux cas wante nag am na 549 patients yoo xam ne wér nañ. 31 malades yoo xam ne ñoom seen wér-gu-yaram dafa sooxe lool ñu nga réanimation ba sub démb am na 5 nouveaux décès yoo xam ne li ko sabab moom mooy jàngoroy coronavirus bi fi jàngoro jógee ba sub tey Sénégal compté lu toll ci cas positifs ñoom ñoo si jot a wér 1765 nañ ci seen bakkan fi mu nekk nii am na lu ci 9 yoo xam ne ñu ngi sous traitement 1 167 324 personnes jot nañ leen vacciné xibaaru Afrique dañ koy tàmbalee tàmbaleek république démocratique du Congo foofa nag ca fa ñuy wax Goma dafa am ay def ko ñaawteef yoo xam ne ñoo fa faat benn nit gaañ fa itam lu toll si juróom-ñaari nit. def ko ñaawteef yooyu nag yoroon ay ngànnaay ñoom daal dañoo fekk ay civil ci fi ñuy wax commune bu simbi dóor ay sox ci seen kaw bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu Slate Afrique. ci ab rapport boo xam ne amal na ko division des droits de l'homme bu mission multidimensionnelle des nations unies ca Mali moom daal neena lu toll ci 527 euh, civils faat nañ leen ci deuxième semestre bu 2021 ñaawteef yooyu nag euh, ñu ngi ko jiiñ groupe terroriste yi euh, wante itam ay milices communautaire ak lii di l'armée bi xibaaru bitim réew benn ponk lay doon ay soldaaru Amérique gannaaw ñaar fukki at ñi amal intervention fële ca Afghanistan fi mu nekk nii nag jóge nañ fa ba set wecc bu ñu sukkandikoo ci waa Pentagone loolu nag mu ngi am ci jamono joo xam ne ñii di taliban yi dañoo jëlaat réew ma dañ koy jeexalee xibaar sport waa PSG ak Real Madrid fi mu nekk nii nag dagg nañu waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaan ngir ñu mën a transférer kii di Kylian Mbappé fële ca Real Madrid bu ñu sukkandikoo ci l'équipe fi mu nekk nii nag kon lu bees daal bu ci amul ñu jàpp ne ki nga xam ne moom mooy attaquant français bi dina jeexal saison bi foofu la ca PSG li ñu tey ci xibaar rawal seen teew lañ jox daje ëllëg jaa